yëpp. man bi ñu restitué sama commission loolu dégguma ko. Pamatam. alors euh, man je pense que gis nga li ñuy waxtaanee yëpp mooy dañu désacraliser li nga xamante ni mooy la fonction du président de la République euh, parce que en réalité euh, gis nga li Mame Birame wax président sax avant ñi naan dafay nommer si lu mu tudd poste civil ak militaire dafay prêter serment ni moom dafay jurer remplir remplir fidèlement les charges du président de, euh, de président de la République. serment boobu mi mi mi mi prêté moom moo ko interdire mi am yenn comportement yi mhm. ci conseil supérieur de la magistrature ci douane nag ci feneen ak feneen ak feneen donc président bi bu wàccee boobu le serment bay def leneen loolu yaakaar naa ni président bi ci boppam la parce que bu ñu amee président bu mat bu taxaw avant ngay jël fonction nga waaj nga ni que man waat naa ni que li nga xamante ne moo tax ngeen fal dinaa ci ne ñu ni ko lan mooy fonction président wax ko ko constitution wax ko ko mu xam ko. Mhm. amul fenn foo xamante ne dañ ko ni président am nga droit ger nit. amul fenn foo xamante ne dañ ko ni booy tànn dangay tànn koo xamante ni ku jubadi la wala da ngay def promotion médiocrité président nag bu wàccee àndam ba def leneen. je pense que moo tax ma ni le débat quelque part dañ ko xaw a faussé di taxaw di naan président war na dugg ci conseil supérieur de la magistrature wala war fa te beneen mbir bi aussi man du ma trouver benn circonstance atténuante ci koo xamante ni dafa prêter serment et qui nous coûte très un magistrat nous coûte très cher dans ce pays. Mm-hmm. indemnité judicature yi Abdoulaye mi ko fekk ci cent cinquante mille yóbbu ko ci huit cent mille doublé li nga xamante ni mooy seen prime de logement donc kooku noonu waat du parce que intimidation du parce que ay privilège du parce que dafa ragal ñu jëlee ko Dakar yóbbu ko Kédougou moom moo war a tax ba muy def naka su dul noonu parce que kooku dafa prêter serment te décision yu muy jël dafa nar a impacter vie nit. Mm. ba boo moytul sax day impacter société. parce que lii ñu jàll bii passé mars deux mille vingt quatre deux mille vingt un mhm. ay magistrats ñoom ñoo ko jël comme décision te décision yooyu noonu boo seetee ba seet dafa li euh, méngoowul ak li nga xamante dañ ko waat te waat boobu noonu bu ñu ko ñàkkal fayda te li ñuy wax nii du dix magistrats ah encore une fois dix magistrats yi mooy ñi nga xamante ni mooy seen dossier politique mais doxantu leen tribunal xale yi ñuy ñëw jël di yóbbu grand théâtre mais da ngay ñëw agression ñu ne ok guddi gi la xamuñu ne comme sa agression am nag amul ñu yóbbu la grand théâtre ñu ne da ngay dem assise trois ans mooy grand théâtre salle bu mag bi la quoi boo demee foofu trois ans ñu jugé la ñu ne ok amuñu ay preuve bàyyi la nga ñibbi sa kër ñu agité la man j'ai connu des des samay xarit ñoo xamante ne def nañ leen loolu ñu jugee cant ñu jël jàpp ñu yóbbu dañ leen dañ doon agressé trois ans dañu def ci biir kaso bi ñu dem ñu acquitté leen chambre criminelle ñu dem ñu acquitté leen mm-hmm. mais loolu est-ce que dañuy wéy di continuer ñiy wëlbati ko di naan non non non yenn magistrats yi bëgg nañ libre mais parce que Pape Sané moom moo xaw a dëng non non bu dëngee bu dëngul yow sa bopp li nga xamante da nga ko waat prêter serment ñu lay fay ngay exercer te ba ngay jàng kenn fayalu la. nga toog di jàngal say bopp say cours li ngay def danga ci da ko war a def selon tes convictions te bu nekkee intimidation kase nga reculer. kon yaakaar naa ne Walfadjri tëj na bu yàgg. Mhm. maam Birame du yeggali liggéeyam. Cheikh Bara Ndiaye du yeggali liggéeyam taal nañu oto saaga nañ ko agressé leneen ak leneen est-ce que dafa tax moom mu changer position non. fit ñi ko am bëriwul nag départ. déet non du question de fit du fit. responsabilité responsabilité la. Mhm. parce que boo demee ba taxaw waat da ngay mat li nga doon boo xamee ni nag liggéey bi may def nii dafa laaj ma jël sama responsabilité à 100 pour cent man matew ma ko bul waat. man loolu laa gëm. Mhm. d'accord te te pour dolli ci li Pape Matar di wax. bu ñu amuloon ay magistrats yoo xamante ni indépendant nañ gëm nañ seen bopp élection doonul am le 24 mars bi passé effectivement mhm. effectivement mhm. bu euh, amuloon ay magistrats yu dëgër euh, verdict bi daanoo Ziguinchor Sabassy Faye du ko jël Sabassy ak Thion euh, ñooñu moom très bien donc magistrats yi nga xamante ne nii bëgg nañu indépendant di jël ay décisions yoo xamante ne nii c'est en rapport ak seen li ñu gëm mais bëri nañ te dara terewu leen ko donc mhm. ñu si bëri li ñu bëgg mooy ay postu ay bëgguma dem fii bëgguma dem fële te loolu nag wax dëgg yàlla c'est des risques yoo xamante ni képp kuy def yenn métiers yi mais tuy de toi t'attends à ce que muy am. mu am euh, prime de risque looloo tax ñu leen koy jox euh, euh, Cheikh Bara Pape Sané dafa évoqué léegi mooy haute trahison bi lu tax ñu buggoon ñu évoqué ko moo di ne le cas du président Macky Sall gis nañu ak kuréel gu jub taxaw ne. li ñuy laaj mooy pétition pour delloo siwaat ko pour mun koo juger pour haute trahison mais dafa am yu bëri yoo xamante ne ay manquement la tey jii si euh, li nga xamante ne moo di suñu justice man li ma wax mooy